baax a baax di leen jaajëfal ci jéego yi ngeen jéego ba ñëw fii di leen ñaanal sunu borom defal leen dam ci seen liggéey bi ngeen di liggéey di wax ci turu chef du village bi Serigne Bara Diop nee na kontaan ci teew bi kontaan na ci jataay bi ndax woote ñu wuyu si la yombut waaye gis na na kenn ku nekk bàyyi na yitteem teew na ci jataay bi li ko waral loolu lépp nag fii nag benn bopp la ñëpp ñoo bokk dañuy xàccandoo di doorandoo fu kenn jëm rek fala la ñëpp jëm waaw fu kenn jëm fala ñépp jëm muy jigéen ñi di xale yi ak góor ñi ñëpp rek ñun ñoo bokk lépp waaw seen jataay bii nag ñun ñoo ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax te xam na li nga xam ne moom ngeen di wut ñoo ngi ñaan suñu borom defal leen ci ndam bu baax a baax a baax waaw ndax yombut waaye nag comme li ñu wax rek ab jaam moom sañ naa ñaan boromam kon dañ leen ci ñaanal ndam rek saa borom defal leen ko li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla def comme fii nag ni ma ko waxee rek suñ Baara Diop kontaan na ci jataay bi kontaan na ci yéen di leen xamal na moom daal su sañoon saa borom defal leen ndam lu yaatu ci seenub liggéey waaw alaaji Omar Sall mii liggéeyam rafet na fii ci dëkk bi wax naa ko nee naa ko day bu ñëpp meloon ni yow wax dëgg yàlla dëkk bi weesu na fi mu nekk waaw ndax wàll yëpp luy indi développement ci biir dëkk bi lu ne ma ngi ciy dugal loxoom kon nag dañ koy mën a sant di ko gërëm bu baax a baax a baax ndax bari na yoo xamante ne xëy na mooy dugg ci dëkk bi ak di fi dox loxoom ma nga ci biir kon boog moom dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na ci lépp dëkk bi moom wax dëgg yàlla ni mu fi taxawee bàyyiwul dara daal. waaw wax dëgg yàlla ñëpp góor ak jigéen ñëpp kontaan nañ ci moom waaw kon nag sëñ Bara Diop moom mi ngi leen di sant di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax di jaajafal waa dëkk bi ñëpp ndax euh, ñëpp ñu ci ëpp ñëw nañ yaakaar naa ñaari at yi passé maa nekkoon président ASC yi yàlla dogal nag ba xam ne samay activité mayetuma may continuer ñu jox ko ci keneen seen ñaari capitaine yëpp ne ma maam ma jël ci seen kàddu fii nag dëkk bi moom yàlla dogal na xañ ne boo xoolee ci ni ñu dëkkee da nga koy jàppee dëkk bu ndaw waaye tey ci commune Darou Salam Typ mooy dëkk bi fi ëpp population boo xam ne ay jeunes lañ fii boo ko Typ mooy commune bi mais dëkk bii mooy dëkk bi nga xamante ni boo doon génne tey ay ASC dëkk bi moo fi ëpp population fii ci commune Darou Salam Typ ASC bi nag kii mu yox Abdou Diop mooy seen capitaine beneen bi ci des mooy Mamour Fall yàlla dogal na ñoom ñaari équipe yëpp dix équipe la ñu woon yàlla dogal na ñoom ñaari qualifié nañ ci quart de finale suba la équipe bu ndaw bi di football demi finale gannaaw suba la équipe bu mag bi di football demi finale kon ASC ñoom ñu ngi nii yàlla dogal na mayo yii ñu sol ay politiciens ñoom ñoo ko fi indi woon daaw ci biñ ciy toll muy PDS boobu man maa fi représenté woon wàllu askan wi maa fi gañe fii yëpp maa fi gañe ci bureau de vote maa fi gañe li ma leen mën a wax mooy képp ku bëgg lu ma neex man ak képp ku xamante ni bëgg nga jàppale El Hadj Omar jàppale sama jigéen ñi jàppale sama ndaw ñi ndaw ñi ñun moo la ñu am ñoo suñu ressource yoo xam ne moom la ñu ci turu jigéen ñëpp nag xañ na am nañ complexe daanaka wax lii may wax dama koy wax ci cadre jigéen ñi di ko wax ci cadre góor ñi Sarr mii mooy kiima ma njëkk a xam sëñ am sa Mbàkke mu sëñ Ablaat moo ma boole ak saar mii ay kilifa recevoir ma ma dem toog waxtaan ak ñoom barki démb laa mujjee toog ak sëñ Bass Abdou Khadir ci wàllu tool yoo xam ne ci la ñu war a collecteur te yaakaar naa am na ñu bëri ñoo xam ne gëmuñu woon collecteur mais tey jii ndaje miiri bu mu bu mu ma fenn matériel bi ñëw na mi ngi nii Nogoy Ndiaye mais mi ngi fi su ma béyoon Nogoy Ndiaye mi ngi nii kii su ma béyoon ma ña ngay monté toolam ak ñeneen ak yoo xam ne ñi ngay monté seen tool yoo xam ne fooñu ma fukki dërëm man développement. maa leen sant nag bu baax di leen gërëm. Euh, maa ngi man la soxna Absa Ndiaye dëkk Touba euh, nekk membre c cinquante ak ABS ñaari ñaari kuréel yoo xam ne yëpp ñoo bokk borom euh, maa ngi nuyu soxna yëpp di nuyu suñu càmmee ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk tey du nuyu chef de village ak soxna yi soxna si Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la ziar. tey nag dañ leen indiloon benn bu doon bu doon lu ñuy jaay dañ naan la dañ leen indil produit bu neex a présenté Euh, may ñëw rek ci sëñ bi li mu wax léegi nee na moom acteur de développement la bi mu ko waxee damaa firiwaat toog parce que ma xam ni kon fii suñu dëkk la euh, président Ablaye Sylla fu may njëkkee rek mooy bi mu duggee ci politique ak léegi six mois yii te euh, politique am te te duggam si demande sociale la ndax dafa ñëw toog benn instant mu xool jigéen ñi li ñuy daj ak financement yi ñu leen di jox suñ leen financé deux cent mille laaj leen vingt caution 25000 laaj leen frais de dossier 10000 ba pare ñëw bu ñu leen financé daanaka mil 200000 150000 la ñuy génne ca banque ba booleeg nag duñu leen may jàmm mu ni kon na créé benn kuréel boo xam ni C50 la tudd c boobu lu mu si jublu woon mooy ñu ñu may ñu may ñuy financé jigéen ñi te duñu leen ci tegal dërëm mu dem sax bu mën a financement boo xam ne doo ko fay da ngay liggéey def sa bopp euh, bi mu defee projet boobu euh, li mu tënkaat leneen mooy Euh, li nga xam ne dañ koy liggéey xam tey jii ñu waroon a defar tali daaru talam daaru salaam tip mu ni li ñuy demee jël ay nit ñu xonq ñu ñëw ci dëkk bi installé wu fi nekk dans des bonnes conditions di jël suñu frères yi di leen defloo peinture loo ay tali ak di leen def ay gardien mu ni loolu na dakk léegi bu ñu amatee projet nañu ko jël ki nga xam ne moo dëkk daaru salaam tib ñu jox ko mu gagné marché bi téye milliards yi ci loxoom jël ay frères ñu liggéey ñu liggéey seen dëkk kon mu ngi mel ni li nga dëkk bi li mu soxla na ko waa dëkk bi liggéey ci ñaari at yi ci ginnaaw ñu demoon ci partout ci Sénégal doon doxal projet boobu fépp fu ñu dem ni ñu ci boppam comme ni ngeen toogee nii su leen présenté kat mooy président Ablaye Sylla ñoom ñoo naan dimbali leen ñu ngeen wax président Ablaye Sylla mu ñëw bokk posé wu candidat parce que kat ki am bii mbëbët moom su su amee dara ci réew mi ah di mbëbëtam dina gaaw sotti kon moom candidature am demande sociale la nit ñi ñoo ko wax président ñëwal nga politique pour nga mën ñu jàppale. Euh, beneen bu may wax rek mooy président Ablaye Sylla Bawol la dëkk euh, fubal na nawetaan comme jeunes yi ni ngeen ko soxlaa nii noonu lañ ko doon jëlee mu toll ni yéen di nawetaan fii ci Mbàkke euh, papaam nekk Touba mu mu yaroo Bawol diggante Touba ak Diourbel nekk jeune bi mu jàngee ba pare président dafa am gëm-gëm boo xam ne dani man du ma liggéeyal nit mu di ma fay damay fexe amal sama bopp liggéeyloo samay ñoñ mu mu créer entreprise boo xam ne ñu ngi ko tuddee Ecotra Ecotra bu ngeen mooy entreprise boo xam ne day defar ay tali ak di tabax employé 2000 personnes 2000 personnes ñooy liggéey foofu mu leen di fay ñaari junney nit ak 19 nationalités yoo xam ne bokkul ay nit ñoo xam ni dañoo jóge ci yeneen bërëb kenn bokk ceek sa moroom looy làq mu di leen di liggéeyloo kon est-ce bu ñu amoon ay lu mat téeméeri Ablaye Sylla est mi du avancé bi ci topp mooy président Ablaye Sylla ba mu amee alalam moom da koo liggéey ba am koy ba tey politique agul musul nekk ministre musul nekk député musul nekk directeur kenn entreprise am la yor ba mu ñëwee mu ngi ko investir fii ci dëkk bi jam ñaajo gi liggéeyloo 2000 personnes 19000 19 nationalités yoo xam ne jour ba ma duggee Ecotra gis Turquie gis gis ay ñak gis ay ñu jóge ay Ivoirien ay ñeneen mu leen di liggéeyloo di leen fay non jour boobu damaa kontaan ci koo xam ne ba tey laalagoo gouvernement liggéeyagoo Euh, président Ablaye Sylla ci mbaaxam bi nga xamante ni soxla nañ barabu sëñ Fallou bee tey ñu defaraat ko dani man maa koy defar yëkkati ñaari milliards ko xam milliard président Ablaye Sylla mooy ki nga xam ni ba mu defaree bu sëñ Fallou ba pare génnul télé waxul rajo ñëwul ca bañ koy inauguré kenn mësul xam kan moo ko defar nekk taalibe sëñ Sidi Mokhtar Euh, defar bara bu sëñ Sidi Mokhtar bi ñuy defar Masalikul Jinaan heure bu ñëwee jox sëñ Sidi Mokhtar milliard rek mu dugalal ko ci Masalikul Jinaan te xamul sax fu mu ko koy dugalal ba mu paree sëñ bi soog ko wax ne ah li ma doon jox de fii laala ko doon dugalal mooy moom tabax hôpitalu hémodialyse ku xam fi ñu toll ci dialyse ci jamono ji ak dialyse ni mu méttee mu tabax hôpitalu hémodialyse boo xam ne ay junni nit ñoo fay faju te ñu yombal leen ko mbaa sax duñu fay dara et pourtant li tax ngeen toog ba tey ñu leen di wax président Ablaye Sylla te mu def jëf ju jooju kon kooku yàlla rek moo ko ñor ñun ñi doon ànd ak moom de ñaari at ñu di ko liggéeyal mosuñu gis photoom lu dul ci élection yi nag mu xam ne nag fi mu ne nii génn jot na barki déel la génn ca Ndakaaru ba muy génn àdduna yëpp dañoo génn ba mu ñëwee Mbàkke démb ñëpp dañoo génn parce que dañ ne ki ñu doon dégg ak jëfam ju ji te kenn mosul gis photoom xam nga kon génnul télé te am na télé am na rajo ñiy jëf ku ci jëf fii benn 100000 francs bis bu ñu koy inauguré da taxaw di si nag maa def lii maa def lii kon kooku nit yàlla rax na ci moom. kon nag man de soxna ji soxna yi laay waxal bu ngeen xamoon man li ma xam dingeen jàpp président si la ndax fi mu jaar ku fa jaar doo yàq liggéey ba am say milliards musoo nekk ministre musoo nekk député état musu la fal nga ñëw jël li nga am say milliards nga investir ko ci sa dëkk te fi mu jëm ak ñun gu fa nee na bu amee li mu bëgg. mooy jeunes yëpp dañuy liggéey nee na moom ni mu def ba am milliard nee dafa bëgg créer ay milliardaires ma jox leen benn exemple xale bi nga xam ne moo way sonwam bi dinañ fexe ngeen déglu ko day déglu rajo dégg ko mu laajte kii kan la ñun ko kii de ab xale la boo xam ne kaasamaas la dëkk di jàng musique mu ni woowal leen ma ko mu ñëw ñu woo xale bi mun ko yow foo dëkk mun ko Casamance mun ko looy def mun ko musique mun ko ak lan mun ko man de damay dëbbal dëbbali di dem dimbali suñu waa kër Casamance mu jël xale bi dem ñi dàq def musique ci ci ci àdduna bi États-Unis mu dem fayal xale bi 50 millions jëndal ko ay yére jël ay dund yóbbul ko ay waajuram ci Casamance ni ko demal nga jàng musique parce que bu ma créé benn milliardaire Casamance dinaa dimbali waa Casamance kon kooku mooy président Ablaye Sylla te bu ñu doon wax ci ay jëfam du jeex dañ cee jukki rek euh, maa ngi sant ñëpp di leen gërëm te di leen wax ni di leen ñaan rek pour loo xam ne ñun béy mii ngeen di def président Abdoulaye la moo leen ko dàq moo leen dàq yar moo leen ko te bis bu fi duggee di ngeen xam ni ñëw na te moom yow xam nga suy ñëw du ñëwee loxo yi neen te wanewul puukarewul waaw ok jëf merci. yéen sunu mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen masaw ci coono bi di leen sant di leen gërëm. kem sun kem talaal kàttan nun faam yi fi toog sama doom yi fi ak sama sët yi leen ñaanal fan wu gudd leen ñaanal ànd bu rafet nu doxale ko nu ngeen ko bëgg ci kàttanu yàlla di leen xamal ne noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax baax di gërëm alaaji Sall mii leen fi indi ndax alaaji Sall lu baax lu mu gis yéene nañu ko waa dëkk bi ci loolu rek lay dox nag noo ngi leen di sant nag di leen gërëm leen massawu ci bi di leen jërë jërëjëfal bu baax a baax a baax yéen waa dëkk bi yëpp maa ngi leen sant leen gërëm. jërëjëf Serigne Touba man fi li may wax du bari damay seede rek ki ma jëkk a seede mooy El Hadj Omar Sall dama jëflante ak moom ay kilifa boole ma ak moom ma xam ni kii ngeen jàpp nii ku ko jàpp jàpp mbër de moo tax ñun ñu ñëw ci moom. ndax bi moo moom man ak moom ak papay Ablaye si la toog nañu waxtu ak sëñ dan mu sëñ Ablaye sëñ dan mu sëñ Ablaye ak soxna Ami mii ñu toog ñu seede ci moom sëñ bi seede ci moom lu bari kookee ne ku ko am ci barab bii ndax jàpp naa ne mbooloo mi waroon naa mën a ëpp lii buñ ko gënoon a waajal ñii nga xam ne ñoo fi nekkal Ablaye si la ak man mii danañ gis lu ëpp lii nag suñu xel dal na man ba ma ko déggee rek la sama xel dal ci laa wax Ablaye Sylla mu boole ñëw rakam ju baax ji moom aussi il faut ñu présenter leen ko ndax moom bu ngeen wotee ci département mi moom mii ngeen di wotee moom moo nekk ci liste départementale mooy tëdd liste bi di Serigne Saliou lañ ko tuddee muy rakku Ablaye Sylla ah ñeneen ñi xëy na peut-être programme bi niñ ko kii ndax ñoom kenn ku nekk da nga am fooy benn gox gooy dem ñoom juróom ñooñu moo tax moom mi nag ñun moom mi nu il faut nu wax leen mooy kan lu ngeen lu leen réer ci Ablaye Sylla rek mi ngi ci moom lu leen réer ci Ablaye Sylla mi ngi ci moom moo tax man it ma ma ma ma fexe ba ba ñu ñëw ci Omar Sall mi ba ñu xam kan mooy Omar Sall loolu lépp nag da booy mébét lu baax da koy def ca ñu baax wala nga koy wuti ca ñu baax loolu moo tax ñu ñëw ci Omar Sall mi ndax sëriñ si gërëm nañ ko bu ko neexoon ñam tiib wala mu nduuren gi man ñi ma ko booleel ña nga nga ngaay mexe am na ñoo xam ne ngaay mexe lañ ne am na ñoo xam ne Cees lañ nekk sëriñ dan mi ma ngay bay ca Cees fa ko fekk defal ko lam koy defal kon loolu lépp ngeen xam ne kon ñun bu tax mu ñëwee ci Ablaye bu ñëwee ci euh, El Hadj Omar Sall mi danoo am yaakaar ci moom ci mbooloo mi mu yor ñu bëgg na ku jàppale jàppale bi nag du naxasaay jàppale bi du naxasaay de ndax soxna si li leen wax ci Ablaye Sylla li leen wax ci Ablaye Sylla man mii xam naa ci lu bari ndax maa ko jëkk a jëlee njaareem indi ko Touba muy football ci ASC bu ñuy wax jàppoo moo ne woon capitaine d'équipe bi ba mu gaañoo la jël ñël présidence su ASC bi kon yàgg naa dox ci mouvement nawetaan léegi nag loolay daa dem ba weesu mu xam ne man damaa nekk acteur de développement bu mu war a dimbalee mu dem jàngi wut alalam neewul état jox ma neewul nguur jox ma bëgguma bëggu ta nekk ministre bëggu ta nekk directeur directeur de société mais daa yore yëfi boppam alal joojee nag Serigne Touba ko moom dafa naa ne ku lig ku ku tabaxal ku yeesal barabu Serigne Fallou yeesal barabu Cheikh Sidil ragal naa ni boo doon caaxaan doo am loolu kon nag ngeen xam ni liñ leen waaw liñ leen liñ leen liñ leen di présenté daal présenté wuñ leen seen doom la seen rak la seen ndijaay la seen mag la yéen xale yu góor yi di am avenir u réew mi ak xale yu jigéen ñi fexe leen am ngeen koo xam ni bu ngeen ko bu ngeen ko jàppalee ba mu ba mu toog ci réew mi assemblée nationale ba dootuñu fa dootuñu fa def ay naxasaxal nag yooyu déedéet alal ji dootul génn ci réew mi day ñëw ci yéen kon loolu ngeen ngeen bàyyi ci xel jigéen ñi aussi tamit ndawi réew mi buñ leen falee fee dafa am lu leen war lool dafa am lu leen war jigéen ji tey jii nii mu waxee nii mën naa toog assemblée nationale défendre leen fa kon nag comme amu leen yéen ñëpp mënu mënu leen faa toog kon il faut ngeen am ku leen fa toogal ña leen fay toogal nag dañuy benn dañuy nekk jullit dañuy nekk taalibe dañuy nekk ku am ngëm-ngëm ci sëriñ bi am ngëm-ngëm ci réew mi ñaar yooyu boo ko amee boo amee ngëm-ngëm ci sëriñ Touba am ngëm-ngëm ci réew mi ana loo desee réew mi foo jaar da nga liggéey parce que sëriñ Touba moo lay moo lay dompal ba nga liggéey kon nag ngeen góorgóorlu ci loolu loolu rek laa ci bëggoon wax ngeen baal maax ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax di leen masawu coono di leen présenté nag suñu leader bi muy Ablaye comme ni ko sëñ Sarr waxee rek suñu sëñ sëriñ Saliou mi la ñu nekk ci ginnaawam di ko gunge ci liggéey bi depuis boobu ba léegi mais lépp lu ñu dégg ci Ablaye ñu ngi koy gis ci moom macha allah ñuy ñaan suñu borom bu bis baa mu may ko ndam lu sedd guy tamu jik ko ak mboolem ko mu àndal di wax nag ci kàddu représentant euh, fem développement bu ABS maa ngi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp comme li ñu waroon wax yëpp soxna sa wax na ko dañ ci doon sànni suñu kàddu rek di leen jaajëfal dit bu baax a baax. ñu ngi leen di jaar kecc kenn ku nekk ci turam ak santam di tàmbalee ci nuyoo bi sëñ Omar mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo waral lii yëpp jaarale ko ci suñu suñu suñu waajur yi di saar Jënun Sarr ak délégation bi ma àndal nii soxna Absa soxna Maguette ak sama xarit yi nga xam ne nii ñoom laa defandoo lépp. ñoom ñoo may accompagner ci mbir mi depuis bi ñu bi ñu tàmbalee liggéey bi ah di ziar tamit euh, waa Ndourène ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen bàyyi xel dégg nañ fi wax dëgg yàlla jafe-jafe yi ngeen fi soulevé yëpp difficulté yi ngeen di dund yëpp wax dëgg yàlla yëg nañ ko sentir nañ ko gis nañ ko ba tax na dañu bëgg a dalal seen xel rek wax leen ne wax dëgg yàlla ñun li nga xam ne ni ñu ngi koy sàkku mébét bi ñu bëgg nii bu ko yàlla suñu borom saafaraale lu baree baree bari dina changé ci seen doxalin ak seen taxawaay ndaxte lii élection yi ñu jëm nii dafa am benn particularité bu spéciale ay élection législative la képp mooy ñi nga xam ne ñoo lay représenté assemblée nationale di fa voté ay loi di fa contrôler action gouvernementale maanaam gouvernement bi ni ñuy ni ñuy doxalee nga koy saytu di ko xoolaat loolu dafa nekk lu am solo loolu mooy décliner seen njëlbeen maanaam loolu mooy xàll seen avenir yéen waa Ndourène ba tax na kii leen di taxawal foofu di leen waxal di leen xeexal pour li ngeen xam ne nii yelloo ngeen ko muy seen àq ak seen yelleef ngeen jot lii seen àq ak seen yelleef mooy fexe ba fii Ndourène village bii désenclavé wu parce que li koy désenclavé mooy sëñ euh, sëñ Omar mii mi ngi ci sëñ El Hadj Omar mii mi ngi ci à travers li muy activités yi muy def effort yi muy def mais effort yooyu doyul effort yi foog ngeen am ñoo xam ne nii dinañ leen ko mën a yuuxul waxal leen ko te ñi leen koy yuuxul di leen ko waxal ba ay solution juddu ci te ñun duñ ci yem ci yuuxul leen ko waxal leen ko dañ leen di yuuxul waxal leen ba pare andil leen ay solution maanaam jëf ci yéen parce que ñun lépp lu ñuy évoqué comme problématique am nañ solution noonu la ñuy doxee ba tax na baatu politicien mooy yàq yenn jotaay jotaay yi ak mooy yàq politique bi ndax li ñuy ni ñuy doxalee la ak seenu askan yàlla suñ borom nag ñun musal nañu ci wet googu parce que ñun musuñu politique man mii di wax ak yéen fan yii laa commencé téye micro di wax man musumaa xam micro nu muy téye ñu koy téye loolu yëpp sabab bi mooy fexe ba suñu askan ñi nga xam ne ne askanoon nañoo ñun ñu ñu ñu ñu ñu ñu seen àq ak seen yelleef ñu ñu jot ca loolu rek mooy moo ñu dugal ci politique mais politique benn loo xam ne nii luy jëm ci ñun la dugaluñu ci li ñu ciy dugal rek mooy intérêt général moo ñu ciy dugal fexe ba suñu askan nekk nekkin bu am solo loolu moo ñu dugal ci politique suñu leader tamit président Ablaye Sylla loolu moo ko dugal ci politique sànq soxna soxna Absa doon na évoqué c cinquante PN ambition yi mu am dem ci pôle de développement yi ñëw ci yu mel ni yéen seen yaay suñu yaay suñu rakk yi nga xam ne nii ñu ngi activé wu ci ci domaine sport sànq Sarr évoqué na ko moom foofu njëlbee moom foofu la tàmbalee ci ay seen nawetaan yi mouvement sportif yi suñu yaay yi c cinquante bi bu ñëwoon fii incha allahu rabbi parce que C50 bi buñ buñ buñ jeexalee yi dañ koy déroulé waat parce que loolu. ay financement la yoo xam ne nii dañ koy tegal ay mécanisme de financement mais financement yi dañ lay former ba pare parce que nit ki boo ko formé wul jàngal ko ni ñuy téye xaalis amaana buy jëyee xaalis rek mën naa seey ci loxom comme yàlla suñu borom euh, président Abdoulaye sila yàlla may na ko ci domaine boobu ni ñuy wutee xaalis niñ koy téye ak ni ñuy créer emploi xeetu type de personnalité yooyu noonu ñoo mën a yorum réew ñooñu ñoo mën a tax am réew jëm ci kanam parce que kuy créer emploi kooku da ngay valeur ajoutée mai valeur ajoutée boobu ngay créer loolu mooy participer ci développement wu réew am réew lay dox noonu lay doxee non seulement day créer emploi mais day day tabax ay infrastructure mais am réew ay infrastructure moo ko yor li ci mel ne bâtiment ay voirie réseau d'assainissement loolu moo yor réew bu ñu gisee jafe-jafe yi Touba di ko dund ci loolu la gis nga ni mu commencé def dëkk ba mais loolu ñun waa Touba dañ ciy war a taxaw ku ci nekk am nga ci part responsabilité taxawaay bi ñu ciy am mooy dañuy fexe ba ñun problématique yooyu nga xam ne nii mooy moom mu ñuy préoccupé ñu jiital ci suñu bopp jiital ci koo xam ne nii ci ñun la bawoo ko fexe ba moom problème yooyu moom moo ñu koy mën a porter parce que tamit li tax problème yooyu yàgg ci ñun mooy ñi nga xam ne nii moom lañ daan dénk suñuy baat fële ci pencum ndaw réew mi taxawaay ba ca am daawuñ ko def parce que boo jëlee député boo xam ne nii mënulaa xamul luy projet de loi xamul luy proposition de loi mënulaa interpréter benn texte de loi kooku mënul défendre say préoccupation loolu mooy waxu dëgg parce que man loolu laay wax chaque jour nee naa leen ñun Touba type de député yi ñuy am département de Mbacké type de député yi ñuy am du ay député man xawma ay lan la parce que mënoo représenter ab dëkk dëkk ba ngay représenter mu doon deuxième ville du Sénégal am ay jafe-jafe yu baree baree bare yu fa nekk nga war koo porter dem ba assemblée nationale di di xuloo moo tax ba ñun suñu développement foofu lay commencer faaw ngay jël ay nit ñu responsable nga leen di dénk sa sa bat ndaxte kàddu dafa fort koo koy dénk war nga koo saytu saytuwaat ko dafay enquête de moralité ci moom xool ba xam kooku ki koy dénk nii avant muy dagaan lii ma ngi ci woon lii askan wi soxla ñun nag yàlla suñu borom suñu leader yàlla suñu borom da ko may mentalité boobu muy yàgg nekk ci li nga xam ne nii mooy préoccupation askan wi à travers jàppandal yi muy def ci askan bi jëmale ko ci Touba lu ci mel ne màggalu Touba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni mi ngi koy def biir Touba yoo xam ne ni ñun sax yëguñu ko amaana dañuy dem ak Sénégal gi yëpp de façon générale sànq soxna Absa doon la ko évoqué muy centre hémodialyse bi muy bi muy defar zone de captage Dakar centre hémodialyse boobu noonu mooy centre hémodialyse bi gën a ci Afrique de l'Ouest 1300 lii la am waaw kon loolu loolu day ay actes yu yu yu noble la loolu xeetu doomu aadama yooyu dañ ay ay champion national lañ képp ku leen am ci réew danga leen war a encadrer parce que yombul humanisme boobu du ñëpp ko am xaalis dafa sax ci xol de képp ku koy joxe xamal ne kooku doomu aadama bu spécial ba tax na daal kooku mooy tibu personnalité président Abdoulaye Sylla genre ni ñooñu nag ñoom ñoo war a mën a représenter nit ñi parce que avant tout dañuy yërëm seen askan. parce que yërëm sa askan mooy mooy waral nga am sa wërsëg di ko def ci sa askan mais Touba am na ay milliardaire am na ay borom daraja mais defuñ ci dëkk ba dara xalaatu ñoo def ci dëkk bi dara mais bu ñu amee ay personnalité yu mel noonu. ay nit ñoo xam ne nii bëgg nañoo jariñ seen askan mais ñun ñun askan bi ñun ñoo leen war a booster jàppale leen parce que bu leen jàppalee suñu bopp lañ jàppalee te noonu lañ mën a développer suñu askan ñun wax dëgg yàlla Touba xar kanam bi département bi la wax de façon général jafe-jafe yi benn la fépp foo ci dem même problématique yi lañ lay soulever ba tax na benn saafara rek la am mooy fexe bi ñun ñu jiital ki nga xam ne nii moo bokk ci ñun parce que ku bokkul ci ñun mënuñoo saafaraal suñuy jafe loolu mooy baatu dëgg ba tax na président Abdoulaye Sylla ci ñun la bokk te am na yéene saafaral ñu suñu ay jafe-jafe ba tax na daal li ma leen di wax ay ba ay baadi ay baatu ñaax la élection yi mi ngi jub si na ngeen saytu saytuwaat ki leen di représenter assemblée nationale. parce que dafa am solo moom laa doon wax léegi sama njëlbeeni wax parce que boo leen ko saytoo rek lu baree bari mën naa saafaragu ci yéen boo leen ko saytoo may ko doole fexe ba li nga xam ne mi ngi koy mbëbët. mu am majorité assemblée nationale wala mu am groupe parlementaire assemblée nationale dina mën a dérouler ay politique de développement yu am solo ñu ñu ma dem ci sama mbokk ASC yi nga xam ne nii mouvement sportif yi wax dëgg yàlla dina am njàppandal yoo xam ne ni lu ci mel ni ay mayo mm. yoo xam ne nii dinañ ko faggu teg ko ci loxo euh, suñu élage bi mu indil leen ko incha allahu rabbi lépp loo xam ne nii dinañ ko def lépp loo xam ne nii dégg nañ leen ko fi day day fekk loo xam ne ñun mënal nañ ko suñu bopp parce que ki ñuy yónni da ci askan bi dañ naa ñu lépp loo leen digee rek sallaaw na ngeen ci dox ba ba ba ba ba def ko parce que politique bi fi amoon loolu moom nekkul ci politique boobu bëgg dara tax ngay dig nit ki loo xam ne nii ak sa aqulaay taala boo tëddee guddi xam nga ne doo ko def ñun nekkuñ ci yooyu ñun lu jariñ suñu askan la ñuy nekk parce que lii ñuy politique nii yàlla dañu ko nattoo rek amaana bu ñu toogoon suñu ruq ñu nga doon liggéey suñu liggéey boo xam ne ni mën nañ ci satisfaire suñu ay jafe-jafe waaw ba tax na politique bii ñu li ciy dugal mooy jaamu yàlla kese ba tax na daal li ma leen di ñaaxaat pour terminer mooy député yi ngeen di choisir au niveau du département di ngeen koy xoolaat parce que député yi may gis Touba fii département bii duñu ay député ça on se le dit nañ ko nañ ko wax mu leer duñu ay député parce que ay député yoo xam ne nii kenn xamul ay genre ay député yu arrogant lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy teg ci kaw askan wi mais loolu yéen askan wi yéen ko mën a dindi ni ngeen koy dindee nag mooy au soir du 17 novembre ngeen voté liste bii nii loolu ñu ngi leen ciy ñaax bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf.